jërë ngeen jëf mama kundul saf na sàpp ci yéen kay ñu xëyandool l'observateur nañu mooy ndaw si ñu doon wax naan dafa réeroon ay mbokkam te ba muy dem dafa yóbbaale woon ëmbub juróom-ñeenti weer moom xale bu jigéen bi di maam faama ñu naan ko mama wala mam pend l'observateur na nañu feeñ na démb ca Castor fa la feeñe ci kër benn femme bu ñu naan umu ndaw fa la ñu ko fekk moom umu ndaw xamle ne keroog talaata ci guddi ca la fekk kii di mama kundul mu ci boori Senelec bu Castor mu jël yóbbu këram li jaaxal ñu bari ci mbiri mama kundul l'observateur nee nañu mooy nee nañu ba muy dem dafa yóbbaale woon ëmbub juróom-ñeenti weer waaye ba ñu koy gis gisuñu ci moom ëmb ba mu yóbbaale woon gisuñuy doom ji mu ëmboon ba ñu ko gisee jël ko yóbbu ca police di ko enquête la mu wax enquêteur l'observateur nee na ñoom mooy def na leen dama xëy di doxante am benn watab 4 x bu ñuul bu gaare samay tànk ñeenti nit wàccee ci oto ba am lu ñu ma sotti ca laa nelaw ñu jël ma dugal ma ci seen oto dem ak moom ñooñee ñoo ma assisté ba mu wasin liir bu jigéen gaa ñi jël xale bi dem ak moom loolee mu wax lépp nag l'observateur nee nañu ba ñu seetee ba ci biir gis nañu ne dara du ci dëgg maman kundul day kàcc ëmbul woon wasinul te it kenn kidnappé ko libération nañu moom ndaw si di mam faama kundul ginnaaw bi mu feeñee yóbbu nañu ko démb ci hôpital ngir doon vérifier grossesse ak accouchement bi mu doon wax waaye gaañi gisuñu dara ci moom moom nag nee na enquêteurs yi ñi ko kidnappé ca rond-point bu gàddaay fa la ko jële dugal ko ci 4 bu ñuul yóbbu ko ci benn tabax bu yeggul fa la ñu ko assisté ba mu accouché wasin bébé bu jigéen gaañi jël liir ba yóbbu moom ñu sànni ko ci mbeddi Castor yi enquête dina kay nañu ana liir ba ciin fuqul ba nul kubéer ga ca nekkoon jugéew fa yax ba ca newoon dem mbiri teenam xel xel mu sorek xol bu jeex ku leen bëgg gis guddi ñu tollu dem demal Fass Boy Le Quotidien yu ci xëtamu njëkk ma ngay dund naqar wu tar lu ëpp juróom benn fukki doomi aadama yu dëkk ca dëkk ba ñoo ñàkk seen bakkan ci gaalu looco gi teere ca cap am na it geneen gaal gu ñu yéenekaay bi nañu ma nga déparé woon ca Fass Boy sooy nañu ko ca Maroc dëkk bii di Fass Boy la teemañu ma ngi ñuy xamal ne tàngoon na jéer démb ci ngoon intifada la ñu fa dund ne ginnaaw bi ñu yégée ne gaal gi déparé woon Fass Boy feeñ na waaye lu ëpp juróom benn fukki doomi aadama faatu nañu ci ay manifesté ñu amoon ca dëkk ba ñenn ci askan wa la teemañu jàpp ne état bi di leen a seetaan ba ñuy wër seen mbokk yowoon ca gaal ga moo waral ba ndaw dëkk ba dem taali service régional de la ba fa nekk caxat-caxatee école bu dëkk ba marché bu dëkk ba tool bi nga xam ne ki jiite comité local de pêche ba moo ko moom tool boobee sax journal bi nee nañu ñi doon manifester dañu koo caxat-caxate gendarmerie bu Tivaouane bi leen bëggoon a arrêté bi mi ngi ñuy xamal ne yëf yi da leen loxo ba dañoo mujj wuti renfort mbir yu ko gis nañu ne newul woon fa ñu faatee xale ba di moom tànt ji gëj na ca kër ga ndax dafa amoon démb Pape Ndiaye mi bàyyu xale yi convoqué Ami Diagne mi jur taawam convoqué Seynabou Sarr mi jur xale bi ñu faat convoqué nañu it Nogay mi nga xam ne jamono ji moom mooy sëy ak papay xale yi certificat Sarr de bi hôpital Idrissa Pouye def la ca nekk l'observateur mi ngi ñu ko koy yeggee ñu yegg ci journal Source A mi ñu xëy yeggee ay xibaar ci Ousmane Sonko ma ca ubbil yéenekaay bi kenn ku jege lool njiital parti Pastef la woon moo wax waa sursuwaane ci diggante fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom ci weeru août état de santé bu Sonko dafa gën a mu ne leen it Ousmane Sonko loof na loof goo xam ne bu mujjee réanimation du ma bett mbetteelu bànneex am na ci lamb ji sunu lamb xëy na diñu xibaar ne combat bu mag taxaw na muy combat rëg-rëg ak Bombardier 24 décembre ci la ñu koy bëri abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir saa su ne ay xibaar yu wér te mi ak